nga yaru nga teey nga bare nga xam-xam sa yaay liggéey so def li nga am jomb la li nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyee ti jinna la waaye dinaa way naw suñ baax ji koo xame xale la waaye li nga kare dinaa ne la li nga kare tey li ilaafi xoresin ba mu jeex ñëpp dañ nga leen bëgg ñoom itam ñu bëgg la muy Umar bun Xattaab Umar bëgg lii laa mu bëgg séeréer réer la te tubaab yaa ngi mu bëgg si taa yi soose wala say fi pël sol bu dootu kulóor rabbaasal law bi bay bambara la ci njaago ataa moom joolaa min joyin sarakul wa amaanam ñoomik min xafin xaagam waaye dinaa way garab sooy bàyyi mbeen gal fi lii laa mu ñawal rilati mu ñawal tubab kérok fekk na ko bu muy ñawal tubaab sittaay mu ñawal soosi wasiifi mu ñawal pël folyaa bu do mu ñawal rabba sallahu be bayti bambara la ci yi babakar mo len di ñawal ñu rafet bu ma topé ay way bu ma gaayu billahi wallahi taala xalé ku len jappal ñu def Kër dañu bolo nek ben ki tok sawet gorale ci man ndaysan goro bo xamne dom ji bu mu tollo ni dañu ko wax madame Pen ba legi ni ndaysan ma ngi jang ki tok ci sama babakar ngi nii ki moy Kër Massar sa sen TV da ngeen ko gis léegi way xala yoy mala wax ñepp sen ñaw ma de sen buñ dañu koy commandé mu ñew ñawalon nañu ma si benn bo xamne ne ngi si fukki at ak ñaar ak wala ci ci ci wër wi ba legi yere bi li ma soxla rafetul am fukki at <coughs> ak ñaar ak genn wàllu at laa jar jar xamee dëgg la te eh, bul ni déedéet léegi nag damay bëgg a euh, monsieur le ministre ma lay wax am benn ma fekk benn sa ya. ñu ñi ñi ak man warul wax eh, man ma ñew ñibbi yow ya nga jël ni rek mu ñibbi man nga bàyyi ma tok nek ndekete ñu wax di dañuy ñibbi ñu leen di tej ba nga commandable ba yow lan moy sa problème ba nga ne da nga bëgg ñibbi mu ne ko man dama bëgg ñibbi ndax man dama sacc nek dama sacc la bëgg wax mu ne ko man dama sacc mu ne ko ah kon yow ya sacc bi ñu wax mu ne wa kay man dama sacc ñu ne ko waa kaay ñu yobbu dafa ñu yobbu ñu sacc yóbbu ko toogal fi mu ne ok mu nan mu nan ki ko nar xam nga buma ko waxul li fo le ma baye rek man ma tok motax dama ko kitt rek mu wax ko dama fecc rek mu indi ma fi mu jox ma ses pour ma tok naka mu nah, tok rawaji genn ni karaj bunti mu ko hey lo def ni mu ne ka kasso nga nekk jërëjëf yàlla na ko ya may ma boobu jama feete danga may teg ak morso rek morso rek te wàcc def ma rab te wàcc rab te wàcc soo def te def bëgg naa gis la am joxal ko kay yow bëgg nga jël ko xam nga lu si nekk man duma ko nit sama photo copie d'identité dong nga ci nekk ak sama numéro téléphone dama bëgg nga dem mu wooma ki sama xaritu benn bakkan lu ma ko ñaan am naa si droit kër masaar jëpp dafa leen bëgg tegal ma rab yow may rab te wat wala ngeen tàcc ko ma rab ko yéen jigéen ñi laa yoot déet waaw kay déet dafa bar nank ngeen ko def di teg bu sol salopette sol jaget ak coquette buy dox di gestu te naan càkkas naan càkkas li ngay woote li mu doon ak lenn si yow di teg bu dee sëg mbëggeel wax ko su dee miineel wax ko mii nag mbëggeel du benn waxal loo si def ñaar ñi la àddul bàyyi leen caaxaar xale bu góor bi bàyyi boo gisee doomu jàmbur ni ko jox ma sa téléphone bu la joxee numéro téléphone nga dugal ko whatsapp whatsapp mooy lan ngay dox di wax naan ko ma waxoon ni daa ma woo yaa ma waxoon ma defal lii fekk boobu li mu lay wax boo waxee ba pare naan ko waxuloo waaye dagg ma xanaa yeah.